Ferland beex euh, Sen TV 14h maanaam Tisbar mbokk yi dañ leen jàmm si bi la jotaayu euh, xibaar ñu koy door ak altine tey jii fukki fan ak juróom ñetti weeru octobre xam ngeen ne kon si la ñuy jëmmaal euh, gane si àdduna gën gi mindeef loolee tey jii si guddi gi la ci àdduna bi wërngal këpp rawatina fii ci réewum Sénégal du ñu si des gannaaw ndax yaakaar naa ne tey gox yeex gox goxaan yi foo sa dem dinañ tàntal nabi mu mel ni it sa Tiwaawan ci fàttali bi ma ñaareel bi yoon du ko amal ndax mbas mi fi mu toll kon na gàmm gi waaye terewul mbokki euh, Moustarchidine yi foofee la ñu joxante dig daje ngir jëmmal guddi gi tey jii di leen fàttali te njiital gëm sa bopp ni ki rek mi ngi woon sa diwaanu Kaolack xalif ba ñaanal na ko euh, ba noppi it doxantu na ba sa lew na ñaseen dem na foofee nga xam ne euh, sa ndemeen kaneen waaye it njabootu Serigne Touba gi foofee sa tuubaa Ndorong def na fa ab délégation xanaa di leen fàttali kon gàmmu gi tey jii fii ci groupe des médias ni ñu koy defee at mu jot euh, gox yeex gox goxaan yi si Sen TV ak Zik FM dura du leen ca ump si lañuy euh, tàntalee boroom guddi gi euh, fii ci Sénégal tolluwaay mbas mi fii ci réewum Sénégal xayma gu mujj gi ndax xam ngeen ne kon kenn ñàkkul bakkanam ci jàngoroy coronavirus gi waaye nag juróom-ñaar ci ay cas yees la ñu am benn kaa importé maanaam dañu ko jéggaan ni am na juróom benn yu nga xam ne ay cas communautaire la maanaam xamuñu fu ñu ko jëlee juróom su suñu nga xam ne nii amee woon nañu euh, wopp gi faj nañu leen ba nu wér ñaar fukk juróom-benn jamono ji ñoo tëdd euh, mbas mi euh, tëral leen ñu leen di faj te waraguñu juróom-benn jamono ji dañoo lot ba nekk Sowetaas. ay programme la yu nguur gi teg ngir nag jële fi ñàkkum xëy mi bokk na ci xëyu ndaw ñi waaye it euh, délégation général bi di euh, DER euh, xanaa kay koppar gi nees koy mën a def ba jot si ngir loole daal di mat ndax nag DER bi ci fàttali ki fanweer ci ay milliards lañ leen nattal waaye nag lu yées ñetti milliards képp la ñu jot mu yay jafe-jafe ngir nag ñu matale seen programme rawatina koppar ba nga xam ne maanaam budget ba ñu leen nattal te du ñu sa jot ñu ànd taxaw seetlu bu ndànk ko ba délégation générale à l'entrepreneuriat rapide bu jigéen ñi ak ndaw ñi te mu sàlloo yombalal leen ci ñu jotee ci financement yi saa si am na jafe-jafe ngir doxal mission ci ni mu waree ndax ñàkki koppar depuis mars 2021 DER li mu jot ci ay demande de financement ci lu ñeel programme mu xëyu ndaw ñi jege na ñaat téeméer ak juróom fukki milliards ci sunuy koppar dossier yi ñu traité ba war leen a boo ko xaymaa jege na fanweer ak juróomi milliards ci sunuy koppar waaye dossier yooyu ba tey ñu ngi xaar financement yi génn bàyyeekoo ca trésor bu ñu doyloo délégué ba Amadou Sarr ginnaaw bi ñu ko ci laajee ci sommet wu Montpellier bi nga xam ne njiitu réew bu France moo ko woote woon juróom-ñetti fan ak juróom-ñeenti fan ci weeru octobre bi weesu délégué général bu DER di xam la ne ci wàllam mënta expliquer lan moo waral yéexaange am ci financement yi moom responsable bu DER bi di xam la ne dalee kon ndorteelu at bile ci fanweeri milliards yi waroon a doon budget bu kuréel ga waa finance yi génnewuñu lu dul ñaari milliards ak genn wàll ci suñuy koppar accord yu mu jot feneen ñeel projet bi ñu dippee PAVIE di projet d'appui de valorisation des initiatives entrepreneuriales itam yeneeni koppar yoo xam ne ay fondation ñoo leen ko baaxee tax ba ñu mën a financer lu jege fukk ak juróomi milliards ci suñuy koppar ani ñu dëgmal ndax xam ngeen ne kon soo moyul benn candidat indépendant du ca bokk maanaam euh, candidat yi nga xam ne ànduñoo benn parti politique ñoom ñoo demal seen bopp la koy firndeel moo di barème bu yees bi nga xam ne jot nañu ko génnee euh, ngir nga bokk si yooyu la jongante nekk candidat indépendant yoo gis ñu am ñaar ñu nga xam ne ni am nañ xemmemteefu ànd ak yow loole nag euh, bu ñu ko defee soo moyul kon nag jongante gox goxaan yi ñu dëgmal da mboolem candidat indépendant du ñu sa bokk loolu du samay kàddu biraaloo mooy ni xam ne dafa bokk ci société civile bi foofee Pikine. leen ñun li ñu ñor mooy dëkk bi moo ñu ñor li ñu ñor mooy trouver solution bi nga xam ne problème yi nga xam dañ koy jànkonteel te yaakaar naa ne suñu àndee boole suñuy doole doon benn loolu dinañ ko mën a am dinañ ko mën a résoudre les problèmes loolu moom mooy sama mot à dire la gars yi ñoo ngi naan nag. daanaka majorité bi yëpp porte nañ seen choix ci sama candidature pour ma diriger liste bi loolu euh, ni ma mën a waxee nee naa loolu xaw ma nag yan critère moo leen euh, animé bañ na man la ñuy porter devant la scène de toute façon damay profiter ci occasion bi di leen remercier di encourager tous les militants que le travail continue on va gagner ensemble gouverner ensemble keneen ku sa àddu jëmale moo di Moundiaye Cissé njiital ONG 3D nee na système nga xam ne moom la ñu teg ci candidat indépendant yi de soo mayul euh, dana sax beddi ña nga xam ne ni amoon nañ xemmemteefu bokk te loolee nag du benn yoon euh, ñëpp la ñu waroon yematle mu dee kàddu yu mu yëkkati dénk ko Younouss Balde dama jàpp ne élection candidat candidat rong la munul am candidat kumba am ndey a candidat kumba amul ndey ndax candidat yépp yam dayoo ci wàllu yoon ba élection yi am ñu xam kii moo am lii wala kële am lii waaye tey li ñuy def euh, yan ko candidature indépendante yi du dëgg te du yoon ndax mënoo ne yow ñi nga xamante ne dañu yore parti politique am récépissé mën nañu dem sans outil parrainage mais ñi nga xamante ne yoruñu récépissé dañuy outil parrainage looloo tax parti politique yi di bari rek aussi récépissé yi di bari parce que pour mën a contourner eh bien loolu beneen bi mooy dafa mel indépendance ba ñu am. jongante googu xam ne si Tivaouane Peulh xam ngeen ne fan yi ñu génne ka ñu toftal ca maire ba ci boppam moo génnoon te xam ne ne kon dana samp nëndëm ndax nag maire ba def fa dara maire ba ci boppam bi la moo ko tontu moom Papis Diop la mu ko xamal moo di bu ñuy voté moonte daf daf kookee bokk na si ñu daan voté ngir na lu ñuy liggéey ca gox ba kon nag tey jii bu taxawee na maire ba liggéeyu fa dara dana ko jaaxal Papis Diop lii moo di ay kàddoom commune Tivaouane Peulh Niaga mooy commune bi nga xam ne moo am màggaay bi gën a gaaw ci Sénégal amee màggaay bu gën a gaaw Sénégal mooy lii manqué mooy gën a gaaw gën a bari ci Sénégal lépp day manqué am na yoo xam ne du ci man muy courant muy ndox dañ ci waxtu suñu ax rek pour ñu am ci solution kon dama jàpp ne que bu fekkante ne euh, liñ defoon rafetul waroon nañ ko wax ci bërëb bi ci conseil municipal ba saa buñ dajee foofu waaye mosuma def loo xamante ne si ñii di xarab tey Euh, voté wuñ ko lu mu mës def ñoo ànd ak man ñu vote ko jàpp naa ne bu fekkoon li ma defoon baaxawul di woon dëgg keroog la ñu waroon taxaw ne ah monsieur le maire lii baaxul dëgg duñ ci ànd te bu fekkee da toog ba sa mandat di bëgg a jeex nga développé ay xalaat xalaat yooyu donc waroon wax ba ba ba affaire bi biñ nekk di gérer. ñi bawoo sa Tivaouane Peulh wutali sa Fatick foofee commune bu Fimela maire ba nee dana wut ak bëccëgug euh, maanaam weccante xalaat ci wàllum koom jagleel ko jigéen ñi nga xam ne ñoo nekk sa maire ba bëgg-bëggam moo di jigéen ñi si boppam am activité ñu yëngu dem ba mën a euh, demal seen bopp ci wàllum koom ñu ànd a seexal ba daxa Sonko ci ab ndaje bi nga xamante ne jigéen yi nekk ca Ndangaan ñoo ko daal di organiser ci la maire bu commune bu fim laa jël dogal nii chaque année municipalité bi dina jàpp date bi nga xamante ne ci la ñuy sargal jigéen yi nekkee ci commune bu Fimela. jigéen ñi aussi gam yi ñuy def xam képp ku xam gam xam ne mooy cosaanu séeréer te séeréer cosaanam dafa yaatu waaye gam yi aussi benn benn pàcc la ci cosaanu séeréer ñoom ñu xalaat ko ne dañuy def ay journée calebasse mais sargalaale ma ci tuddee ko mu nekk loo xam ne rafetlu naa ko ci biir la ndaje daal na ci profito kañ li nga xamante ne mooy bilan am jàpp sax ñoom dañuy sampaat seen dënd ngir amal beneen mandat. dama liggéey moo tax ma nekk meilleur candidat parce que candidature kenn du ko portel boppam population bu ñoo la koy portel du dëgg te man gëm naa ne tey ma neexee su ma déposé sama liste bu ma neexee ma bañ a campagne parce que yàqu ma fi dara dama ko fi liggéey te gumbooy sax xam nañ ne Karim moo war a jiitu commune bi. anticipé ma de dinaan Macky Sall man la tan de mais gumboy sax xam nañ ne profil bi Karim la. teewaayu conseil ministre Ablaye nduur moom daat na ci profito sargal taxawaay jigéenu ndàngaan jàpp ni ñoom dañuy dugal seen loxo bu baax ci wàllu développement. ñu faral di wax ne kon tëgg dawul mbaar noo la tontoo borom diplôme yi waa ji da di ab ndaw euh, ba noppi it mbaar ma nga xam ne moom la bàyyam yoroon daf koo donu ca moom euh, mi ngi dëkk ca Médina Gounass euh, wala sax sa Gounass banlieue Dakar Ndiaye fukki at ak juróom def na ko fa xam-xam ba mu ci am moom Moussa Thiombane tax na mu bind sa ab téere dëxëñ sa xam-xam nga nga xam ne moo ñeel wàllum liggéey ci wàllum weñ googee musaa Thiombane jot na saa dénkaay kàddu nan ko bakayoko àdduna bi tey donc ñi ñu dominé ñëpp ci maanaam ci fer ak ak fonderie la ñu dominé parce que tey Euh, boo maîtriser fer maîtriser fonderie daanaka maîtriser nga du bëri ci àdduna bi. ba bind livre donc teg ko ci xam-xam mais teg ko ci ay recherche aussi euh, wan autorité que ni donc bu ñu jaaree fii jàpp naa ni donc li nga xam ne moom secteur fonderie ak force dina développé. àdduna bi tey wërndal këpp li ko téye mooy ñi nga xam ne dañoo am ay industrie automobile aéroportuaire naval extra donc ñooñu ñoom ñoo téye àdduna bi donc loolu à la base moom mooy le fer et le donc dem ba Euh, également la fonderie donc loolu aussi nekk na loo xam ne ni état war na ci war na ci bàyyi xel parce que bu ñu nee Sénégal tey am na 700 millions de minéraux fii fer bi war nañu mën a développer ñu àddu jëmale ci programme mu yu ndaw ñi ndax xam ngeen ne kon euh, directeur bu euh, service euh, civique national colonel Henri Diouf ni ngi tey ji suba moo doon teew am ndaje bu nga xam ne ni lu toll si ñetti téeméer ci ay ndaw di ay volontaire la ñu tànn ngir tàggat leen tàggat googee nag ñetti téeméeri juróom-ñaar fukki yeex juróom-ñaari dañu di ay jigéen lépp ñu jag leen nag ci programme bi ñu tuddee xëy ndaw yi colonel Henri Diouf la ñuy teewlu ay kàddu yu leeral yi mos dénk mbaytal xuma formation bi nag ñu ngi koy defee centre d'entraînement tactique bu Thiès pour former euh, góor ak jigéen yoo xam ne dañuy nekk di liggéey di liggéeyandoo ak service civique national dañ leen di jàngal li ñuy wax éducation civique mooy soppi jikko yi soppi doxalin bi parce que gis nañ ne dëkk pour mu dem réew boo gis soxla na ñi ñi bokk li ñuy gis bokk lu ñuy jàppoo ci service civique national mooy boo gisee ne mooy li ñuy war a faram-fàccee gëm sa bopp gëm sa réew voilà ku nekk euh, buñ buñ leen formé ba pare ñoom gox yi ñu jógewoon la ñuy dellu dem di formé foofu di ñaax nit ñi pour ñu soppi seen i jikko soppi seen i doxalin. ñu si pàcc bu mujj bi soxal bi la jotaay xibaar yéen kay xëy fësal lay doon na xelal Ahmed Aïdara nabi gi la sallallahu taala alayhi wa sallam laaste guddig zikr la guddig ñaan la màggalug feeñug Seydina Muhammad alayhi salaatu wasalaam tey ci ngoon la 24 heures yéene kaa ne gàmmu gi day Muhammad mooy mennu mbéte mi am ci kaw suuf mennu mbéte mbégte mi Muhammad la sallallahu alayhi wa sallam Serigne Sambay nee na Ahmad ak Muhammad Sharif Mohamed Ali Aydara daal dinay fàttali na ngëneel yi nga xam ne moo nekk ci mawdul nabi tey bisu tey ba réew mi quotidien gis nga gàmm googe waaw ñenn ñi jàpp nañ yàlla de bi daak sunna la ndax ay njariñ doo a jane ndaxte doomu Abdallah ji moo tànn noon dund ci ndóol te moo ni njiitum réew la woon doon ab généralu armée nekk atekate ca yor ay ndomba tànk yu baree bari waaye doomu Aminata ji moo génnee baykat yi ci coonoog suuf wow moom bàyyi Fatima li mu def ci kaw suuf amul wenn personnalité woo xam ni def nga ko laata moom dëgg la Direct News de gàmm gi day feeñu yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam teraangal nañ ko ñu ngi koy màggal ci kaw suuf te gis nga mawlud gi mooy bis boo xam ne nag si la Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimu Rasul ànd métti lool gàmm international bu Medina Baye waaw umma islam bi yëpp ña ngay sargal nag Muhammad sallallahu taala alayhi wa sallam ak Baye Niass yéen kaa gi ne tey nag ma delloo leen ci dundu ak mbindu moom maam Maodo Seydi El Hadji Malick Sy radiyallahu ta'ala anhu l'observateur moom ñëw ak ñin ci mbóot yi nga xam ne secret yi ñoo nekk ci jumaawu Maodo wii ci Tivaouane yeeg ak ñin tam ci aw say ak yoruba yi nga xam ne ñoo nekk ca Medina Baye gëlé sur quotidien Medina Baye de gàmmu 2021 bi lé waaw mooy attraction ba de fa la ñëpp jëm de moo Medina Baye waaw laas de Medina Baye googe waaye yeewee askan wi na ca mujj ñas ne ko ñas sénégalais sonn nañu sénégalais sonn nañu lool lool lool lool te nag war na ñoo jukkoon saafara daar daar jafe-jafe nga xam ne kon moom la sénégalais di dund te yéen kilifa diine day lii ñuy wax yéen ñu ko gën a xam ndax ko am jafe-jafe ci yéen ñii lay ñëw Cheikh Mahi Niass xalifu Medina Baye waaw nee na xam nga lan moo ñu war ñun Sénégal ay yax yu bees yuy xalaat lii ñuy dund tey maanaam am nouvelle génération consciente des enjeux Niass ñes libération yéene kaay ne gis nga élection locale yooyee waaw mbir maa ngi mel ni sabar gu tas ça part dans tous les sens demal ca daaru muxti gële waa bennoo bokk yaakaar de tasaaroo na naxaru jëf yu ñaaw yi nga xam ne kon moom la responsable arrogant yi nekke ca diwaanu Ziguinchor gële ah coordonnateur u mouvement enseignant yu Pastef bàyyi na Ousmane Sonko dem na ca Doudou Ka é eh way Samba wallu Sénégal tas na ca jàmm gën si kàmbaaw laa la wax waa PDS ak nañ waaw te lu mel ni xamee courtier politique yi ak foncier yi tribune yéene kaa ne bokk yaakaar daal en tout cas yëngu na lool ñi nga xam ne ñooy alliés yi ànd ak waaw ñi ngi gën di sori Macky Sall rek de maar day taal waa parti socialiste ñoom dàq ñu fay caution dem ca ay laa la wax te am na parti yoo xam ne day dinañ leen toppandoo de parce parti yi bëree bëri mais duñu d'accord waa APR wan leen ne leen ñëw leen ngeen sey suñ biir jàppale wuñ ko de dañ koo seetaan dëgg la xoolal ma Benoît Samb rek la mu wax Doudou Ka ak ñama àndal parce que Benoît Samb nee ñin ñooy parti au pouvoir dañoo war di dalal xelu askan wi lée te waruñu nag ci benn jamono di dugg ci ay fitna même bu dee sax provocation da ca am dégg nga de dégg nga ne élection locale yooyee waaw parti socialiste de la mu nar mais mën naa gaañ Benno Bokk Yaakaar bi ah, ah. yéene ka ay groupe Futurs Médias gi ne waaw ne a waaw waaw naan dañuy def fay caution lii wala lee Abdoulaye Wilane ne waaye ku taxawal parti waaye gañe nguur a tax wala continuer téye nguur gi Alioune Badara Diouf ay fee nee parti socialiste mu ñu noo nekk signataire Benno Bokk Yaakaar ba pare bëgg a jël seen yoonu bopp Alassane Cissé Macky 2012 nee na yoon wii PS jël daal mën naa yàq nag suñu ànd bi njaaree ma koy parce ba Malick Fall génn na Benno Bokk Yaakaar te nee na ñun duñu nangu ci Jurbel gi waaye ñu ñuy tànnal maire directeur du CROUS bu Bambey Moustapha Gueye nee mi war na coordonnateur jàngalekat yu Pastef waaw daal dinay fekki Doudou Ka Moussa Sané ne waaw parce que nag patriotisme nekkul mbele mbele rek du slogan projet wu société la te ñun nag Doudou Ka ñu doy ay waay gil ay waay le a kaane investiture ci local yi waaw kër Khalifa Sall de ma nga tàng jër jër jër jër jër réunion ba dañ mujj tas la wax mujjul yegg samedi parce gis nga Barthélémy Dias ma nga ndënd gi di soo war ah, di nii arti tali ay laaj la waa taxaw mbooloo bi leen jiite mu yéen te aslem gële bab sek nga bennoo moo tax xeex ba diggante Moustapha Diop ak Ibrahima Seydi dana mitti lool source ané candidat yeewee askan wi day le 17 octobre bi mais daba daa mujj xiiroo ak ay ak ay ŋaayoo léegi yóbbuwaat nañ ko le 19 critique yéene kaa ne élection locale yooyu waaw Abdoulaye Diouf Sarr day jël na brassaaru capitaine ba nag maire Diourbel moom di Malick Fall génn na Benno na coalition te Guédiawaye waaw Alioune Sall moom impopulaire waa reportage proximité Alioune Sall daal coowal Petrotim baak pétrole bee ko topp ba léegi ni lée juróom benn junni ci ay milliards six mille milliards nga ne sama quatre cent mille moo tax Alioune Sall 23 janvier élection yii nar miti ci moom wala rawatina nag candidature Ahmed Aïdara bi le du samay kàddu de yéen a kaay wax Sud Quotidien ne Antoine Diome waaw candidature indépendante ya génnee nañ parrainage ba ñaata lañ wudde waa Gossas nag Amathio responsable politique élection yi fii ci Gossas Amath Diop ko wax libération waaw traficu passeport diplomatique yi lée ah la ca feeñ ne doy na waar de mbóot doy waar doy waar feeñ na ca de ay passeport diplomatique yoo xam ne dañ leen di defar te indi woo sax yow carte d'identité nationale d'identité bu valide dama ne traficu vrai passeport diplomatique la laa la wax te ay faux document mbir mi amul vérification koy defaree critique yéene kaay ne noppi lee ñi ko jarul la ñuy futi nii ñoom député yi waaw ci passeport diplomatique yooyee Moustapha ma de ma ne nagum séeraas lañu mënuñoo wax bëri ci laa wax gars yi dañ leen di rey dañ leen di simmi dem naa ca làmb jë suñu làmb ne tafaatin booy ñaa deux booy ñaa deux bala Gaye deux waa ndax booy ñaa mën naa sonal ñii Malick Thiandoum ne mi ngee kii bagaas booy ñaa deux mi ngee kii bagaas mais est-ce que mën na leen a sonal <laughs> ak lum leen sonal sonal sonal sonal sonal sonal sonal sonal sonal ñii yor suñu pétrole bii de xam naa ni sonal nañ waaye nañ xam ne jaajëfal ak Ahmed Aidara jaajëfal leen bu baax ci teelu bi bi la jotaay xibaar fii lanu ka ndar képpe kenn dal jàmm ma leen koy ñaanal te di ko sàkku si yéen jaa jëf